ETDR établissement Touba Darou Rahman mbokk yi kër gi ngeen di gis mu nekkoon ci état bu délabré nekkoon ci état bu doy mu amoon lu mu mel ba kenn ñemewu fa woon a dëkk yàlla dogal ñu ko ak waa établissement Touba Darou Rahman ñu xaatim ay contrat war a jublu nag ci réhabilitation boobu kër xoolal ma ni kër gi meloon laataa mu yëg ci ci loxo établissement Touba Darou Rahman mbokk yi du gis ngeen établissement Touba Darou Rahman di yëngu ci wàllum tabax kër bi ñu leen joxee kër gi ni kër gi meloon ak bi ñu paree ci kër gi ni kër gi mujjee mel mu taaru loolu ba wute sax ak na mu meloon mbokk yi nii rek la ko waa ETDR di defee ci liggéey yëpp bu fekkee da nga am sa terrain bëgg am kër gu yees ETDR dina ko defar ba mu baax jox la sa ay caabi bu fekkee ni sa kër aussi moo soxla réhabilitation ETDR ñëw defaral la ko ba mu yemb lépp lu jëm ci wàllu kër muy wàllu carreau plomberie électricité lépp ñoo la koy defal lépp lu ngeen waxtaanee ba juboo ETDR dina la ko defal ñi ngi nekk fii ci Pikine ci technopole bi ci yoonu arène nationale bi villa numéro 406 wala ngeen wooñu ci suñu numéro de téléphone muy le 77 575 50 25 wala 33 824 57 43 ku bëgg ci kër yu dernière génération yi kër yu bakkani yi kër yu noflaay yi tawal gaaw seeti waa ETDR établissement Touba Darou Rahman mbokk yi nga xamante ni ñoom ñooy suivre seen yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk di nuyu waa dëkk bi dina wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. mbokk yi tey ñu ngi fii nga xamante ni moom mooy Kër Mbir. Kër Mbir Ndaw. Kër Mbir fi un grand champion. seet fi koo xamante ni bu jugee waa dëkk bi yëpp dañuy jug gunge ko dem foofu ci arène nationale wala muy bëre ji feneen foo xamante ni sax du arène nationale dañu koy gunge muy Tony Junior waaye Tony Junior moom nag moom moo am bis muy la 11 waa Jënder production tëgg boobu bis waa àddina di ko waaj képp koo xamante ni amateur nga yaa ngi koy waaj ñëpp di ko waaj ba tax na tey. dafa fasiyene won def loolu nga xamante mom moom open press mais jam ak taxem way yalla ak dogalam ba tay ji xew-xew am mu def ko li nga xamante ni moom mooy point de presse waye limi don don point de presse adversaire mi ngi tok jakar ak mom diko xol koku mom moy kan ah sa adversaire koku mom mooy Tonnerre nga xamante tamit am lu mu def ci lamb xam naa ne suba wala ginnaaw suba moom it dina def lu mel nii ñuy jaajëfal waa Diender production tey nag Tony Junior mi ngi nii ñu ngi ci dernier virage bi kañ nañu jëm dimanche incha allah ci arène nationale gaa yaa ngi fi question yi xam naa ne dina ñëw waaye laataa ñuy sori dañu koy jox mu nuyoo nuyu mbokku téléspectateur yi seetaan ñu ngi lay nuyu bu baax am mbégte jàkkaaroog yow. am mbégte tamit fekk si la fii ah, ci dëkk bi ñu ngi lay nuyu. waaw bisimilah. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli seen dem sallallahu alayhi wasallam di sant suñu ñaari waajur bu baax a baax di ñaan yàlla bàyyi leen bi tamit suñu mën a fekk suñu njëriñ di nuyu di ñaan tamit waajur yëpp tamit ku si ne ku ñu desee waajur yàlla bàyyi la ko jëloon fekk seen seen si seen waajur laax tamit yàlla xarale àjjana ñu ngi nuyu Sénégal gépp moom daan ci diaspora waaye kenn di nuyu tamit presse bi nga xam ne tey depuis le suba ba tey ñu ngi fi pour programme télévision bi muy open presse bu waroon am ah mais euh, jaam ak pexeem yàlla ak dogalam parce que nañ ko xam kenn amul seen def nañ si xaaj bi bëree bëree bëri xam nga ñu dem ba division yàlla wàcce dogal ah, te ñun ay jigéen lañ te dogal bi dalul si kaw kenn lu dul si suñu kaw la dal ndax am na loo xam ne mënuñu ko même bu ñu bëggee mënuñu fayee na xar doon doo baa ñaax bu métti quoi mënul nekk parce que fii njaboot bi yëpp benn la te ñu nekk dëkk boo xam te ñëpp famille lañ kenn biir amul kii xaaj ñëpp ñooy bokk lañ kon am na loo xam ne mm-hmm. moo tax it ñu ngi ñi nga xam ne ñu ngi doon xaar bi di leen masawu bu baax di leen wax ni incha allah rendez-vous le 11 août mooy dàq incha allah mm-hmm. euh, di leen ko neexal bu baax a baax mm-hmm. di nuyu tamit ñi nga xam ne tey lépp lu religion man ñoom la parce que tamit euh, dañ ci jàpp depuis longtemps ba tey bañ jàppee ba tey bàyyi bu ñu tuddee Birane Ndiaye tuddee naa ñëpp ndax euh, tey ji lu bari loo xam te ni Tony Jr mu ngi koy def ci loxo am lay jaar euh, ñu am moyen ak ñu ñàkk moyen moom lu mën ngi koy jaar bu baax di ko ci loxo Al Maktoum tamit diaspora moom it kenn moom bu Tony Jr amee combat day dox du am ci jàmm xam nga moom it gis nañ taxawaay bi mu si am bu baax a baax ah. di tamit ku si mel ni Makoura Diop waa Amérique parce que moom mooy jàmbaar la quoi euh, di ko bu baax baax moo rakkam xalil tamit moom it kenn Ibrahima moom it nekkoon koo xamante ni kuy sonn si yëngu tool si yëngu tey jii bari na open presse yoo xamante ni yëpp si loo xam lay jaar ba bii sax si loo xam lay jaar gaa gaanewu fi nag mais booy yi moo leen di dajale temps li ngeen di war a def chaque jour bu baax te xale la euh, nekk jàmbaar bu baax si yëngu tool si yëngu. Mm-hmm. di nuyu tamit PDG Samba Faye parce que gis nañ taxawaay bi ndax bu méttee ñoom rek la ñuy gis. xam nga lu mu xat xat xat tey Tony Junior tey ñoom dinañ ko teg loxo ba tey ku gis Tony Junior da ngay jàpp ne moo jàpp mooy ëpp jàppale si mbër yi te tey ñi ngay taxaw yëpp mën naa ne boo leen doon lim matuñ cinq personnes PDG Samba Faye amuñu fayam. waaw Macoura Diop moom lay bañ a dégg waaye voilà force bi dégg mënu ci dara donc Samba ñu ngi lay siyaare euh, di bëggee tamit Ngoda jëkki Espagne moom it amuñu fayam gis nañ taxawaayam gis nañ affaire bi ñëw na ñëw na ci jàmm di nuyu Cheikh Baye tamit gis nañ taxawaayam di woo ñëw jàpp ci combat bi parce combat bi dañoo soxla social baax a baax a parce que tamit tey tey bamba tey fii boo bëggee jël lu toll trente car car bu ne nga fay ko cinquante mille loolu du yomb quoi ba pare nga bëgg ko boole ak wàccaay day nekk loo te day métti kon diaspora bi bu leen xaar booy bi vocal parce que booy bi mën a dégg ñëpp lii rek lañ mën a wootee xam nga tuddee ñëpp woo leen man tamit ñu ngi ciy woo ñëpp rawatina ñu ngi di nuyu tamit euh, Gora Dieng Gora Diène euh, la PDG PDG Tapa PDG Tapa jàpp na ci bu baax dem nañu à divise mhm. bi ñu demee mu defal ñu teranga xam ne teral ñu kon tamit ñu ngi bu baax a baax te jóge nañ drapeau chef de l'État mu bett ñu ak i teranga mhm. defal ñu ay division ak yeneen te musu non loolu la mën a wax mais moom xam nga ne xelam daloo li ko wax rek nee naa ko sa jabar sax xam na ni maa la man moom tey loolu mënul ñàkk moom xam na ko. parce que ku am adversaire bu doon jëlee ah, loolu nga mën a dem mais tonnerre xam na ni tey ñu ko na ci dara dinañ ko waajal a waaye gisuñu loo xamante tey mën nañoo kale ci tonnerre wala ñuy gisee wala di tëdd di xalaat ni combat bi bu ñu mën nañu sant ñu ko dara na ñëw taxaw dëgër boobu ñun ñooy bëri ñooy attaqué ñooy duma ñooy xeex incha allah ñu xalaat nga ci côté doole. non lu koy am màkk yëppale incha allah lu koy am màkk yëppale. tonnerre laa lor de ci tool lu koy am màkk yëppale incha allah te le onze di ngeen gën a xam booy bi. pérégo leen pour xam Tunisie yàgg na ma ko wax nee naa leen lu ñuy gën a dem di xam kan mooy Tunisie. Hmm. waaw loolu na bàyyi hmm. mais le onze di gën a marqué booy bi tey ñu xam ne di commencé. mais am na ñu bëri euh, moom tonnerre da leen a juumloo ñu bëri saa bu ñu xeexee ak moom côté xeex bi ñoom dañ ci échec. ndax loolu yaa ngi ciy bàyyi xel. mooy li ma lay wax moo ma mag si âge. mais maa ko gën muus si biir géew. yaa ko gën muus si biir géew ndax la maa a xam ni naa ko yàlla mooy si biir géew mais maa ko gën a Tony maa leen nuyu di nuyu bu baax a baax ñi fi euh, ñi fi nekk ñëpp dañ fekk leen fi tey ah. ah. mais tey mais tey bu ñu jegee sa communication Tony est-ce que xam nga réellement ki ngay bëreel mooy kan. Hmm. tey moo la jiitu ci ci biir làmb. Hmm. ëpp la ay takkusaan ëpp la ay bisu mag waaye tamit aay ci xale bu nga xam te ni làmb nga koy coow mais bu ñu déggee ci communication dafa mel ni que moom amul sens si làmb ji ndax xam nga ki ngay bëreel. chance su corrigeur que li tax xamuñu boo soxla ñu ñun li ñu intéressé mooy la olof mu taxaw yomb na. gëm nañ ko parce que nañ ko ndax dem nañ liggéey. Mhm. xam nañ ko xool nañ ko jag nañ ko fay ay millions ko loolu tamit jaaxaluñ ko. Mhm. man li muy ñaan yàlla ñu dëggal boppam ci. tonnerre ngay woo ci dëggal bopp yàlla xam nañu musul arrièral mbër de. musul arrièral mbër de. ah. daw waxet mais mais mais mais est ce que combat boobu ak combat bi benn la. bii ma gën a daase ndax kii xale la daa non moom bi mu jëloon moo diis jëloon. te ñaanatul yàlla jël coup bu mel noonu. lan nga koy laaj. coup coup bi taxoon tonnerre daw. daa diis hmm. ndax moom coup boobu yor na ko. mag coup mag lay jël daw bu jëyee coup xale mu def. ah cher. mais la 11 lu ñu xaar si arbitre siffle génn sa diggante ak moom. waaw xanaa dox si kawam rek incha hmm. bu ñu defee ni ñuy jël moom dox si kawam. comme niñ daa def rek. Hmm. amuñ sax temps buñ ñu tàggat parce que fii dafa sori hmm. waaw comme dañu sori ñun duñ ñu fi nekk ñu tàggat. bu arbitre bi suble may dox si kaw may ma may ma ah. a nekk xale maay def lépp. mais bi ngay waxee lan la. bi muy dégg da nga jàpp ne yow yaa ko ëppale lépp ci làmb boo non pas loolu sax pas ëppale mais dama xam ni nekk si làmb. waaw. Ah. xam nga parfois nit boo xamee li nekk si yow rek da ngay noppalu ko mais tey li ne si tonnerre man bu fekkee dama koy bàyyi xel jarul may bëre man li ne si man rek laa mën a signé moom laa mën a gëm hmm. man moom laay def peut être yéen boo leen ko seetee loolu lay nox hmm. mais man sama gëm-gëm laa la bu arbitre sudee dama dem si kaw bam sa waay dafa mel ni tiitu euh, tiitutul lour parce que depuis ba mu yëgee poids lourd léegi moom xaatatul ay classe si parce que ñi muy daal ci mbapat yi combat bi dafa ko muy combat dara lu tax loolu non loolu dara ay